nataal wala vidéo yi ñuy siin ci sunu kanam dañu nuy xamal ne ca kaw wa lay xewee muy ay jëmm yoo xam ni ñoo ngi leen di filmer maanaam di leen vidéo ñu nekk di dox ci kaw weer wi ñu dinu wax ni ki ci njëkk a dem nag mooy Armstrong ak équipe mu nekk atum 20 juillet 1969 maanaam ginnaaw bi nga xamee ni Sénégal ci boppam am na am piirté muy liberté indépendance ba am juróom-benni at ci jamono jooju nga xam ni wàllu technologie demagul fenn ci jamono jooju la sa Amérique yi wax ni ñoom dem nañu ca weer wa waaye ba def fa seeni vidéo ak seeni photo indaale ko lii nag coow li da cee bari lool ndax dëgg la ak du dëgg tey jii nag ngeen ci xam dara boo leen ñu toppee ba ci njeextal vidéo bi ndéem soob na yàlla aimé vidéo bi muy like ak abonné mooy tax saa sunu dugali vidéo nga mën cee jot waaye itam saa boo ko bëggee dooleel moom calal gi nga partagé ko ci mbaali jokkoo yi wóorom njañ sey nag te muy commentaire yi amuñu moroom ndax ñoom rekk ñoo tax saa suñu defee vidéo ñu sawaraat ci defar leen yeneen ndax ñoom ñoo ni soññi saa su ku ñuy wax Armstrong ak Aldrin ak Collins ñett ñooñu lañu ni xamal ni ñoo jiitu woon mission bii di Apollo 11 nekk benn mission boo xam ni lii di NASA mu nekk benn kuréel boo xam ni ñoo yore lu jëm ci wàllu càmbar diw foofee ci Amérique ñoom lañu ni xamal ni ñoom ñoo demal ca weer ba depuis 1969 ndax nag gaañi ñoo ngi dem ci weer wi jamono jii ñu bare bari daañ ñu ci indil ay laaj maanaam daañ ko laaj li nga xam ni nag moom lañ ci mën a leeral moo di ne fii jamono toll xel mën naa nangu ni gaañi ñoo ngi dem ca weer wa loolu nag firnde yi mën naa bari lool ndax fii ñu toll nii li ñuy tuddee satellite yi gën naa bari ci jaww ji naka noonu itam mission yi nga xam ni moom la gaa ñi di yebal ci barab yi gën a sori waxatuma weer wa waaye li ñu tuddee mars muy délai bi nga xam ni moom ni tuddee mars gaa ñi daañu xam ne ni daañ fa yebal ay mission yoo xam ni yu satellitaire la maanaam yu ndaraan léegi nag ndax ñii ci jamono ji nga xam ni wax nañ ni dem nañ ca weer wa dëgg la wala déet loolu lañu ñu bëgg a leeral bala ñu dugg nag ci firi fàcce yi dañu lay wax ni la jëmmi weer wa nag ñii ñu tuddee astronautes yi mën nañu ni mën na leen a bañuy a jaaxal fii ñu toll ndax diggante weer wi ak suuf si bu ñu ko nattee ci gam-gamle ñetti téeméeri mètre lay nekk yu tegalus lëf ñetti téeméeri mètre yu tegalus lëf nag gaa ñi daañ ko dépensé maanaam daañu ko dépassé ci soriwaay ci li ñu tuddee bayaalu kaw bi ndax nag ñi ni tuddee astronautes yi daañ def ay déplacement di dem ci jaww ji wane nañ ci ay vidéo ak ay démarches yoo xam ni ñi ñuy tudde yi def nañ ko waaye ci diggante ab jamono waaye ak ñii ñuy tudde Amérique ci seen kuréel bi ñu tuddee NASA muy kuréel bi nga xam ni moo yore lépp lu jëm ci wàllu kaw jëmmi astronautes yi nekk itam ñoo xam ni dañuy sacrifié wu lu bare bari ngir mën a joxe xam-xam waaye ngir mën a joxe ay information ci lu jëm ci bayalu kaw bi ba tax na yenn saa dinañ di yëgal ay satellites yoo xam ni yu jogu la yoo xam ni dara taxut ñu def ko lu may am yenn renseignement ak yenn xam-xam yu ñeel li ñu tuddee espace muy espace spatial maanaam bayaalu kaw bi ci làkku wolof Nous nous wax nag ni ñoom ñoo njëkk Nous ca weer ba ñu wala mission la mission Apollo 11 dañuy wax ni seen jiitu réewul Amérique Nixon ñu ñoo leen ñoo xam ne it ni mission bi moo ngi nekk une semaine maanaam huit jours ci huit jours yooyu nag am na yu fi xew loo xam ni day firndeel ak dàqu ci li nga xam ni moom la ñuy jiim a gëmloo nit ñi ñu baree bari daal di jàngat ni américains yi dañoo yàgg dox rek ci xelum doomu aadama yi di leen gëmloo loo xam ne amul loolu tax na ngir ñu bëgg leen tiital dox ci seen mind yi gëmloo leen ni leen ñoom ay nit ñu ñu kéemaane ñu extraterrestre loolu tax na saa su ne ñu li leen gaaral ay biir yoo xam ni nit ñi dañuy xalaat ni lu wóoru la mën a nekk la ñoom ñi ñëw ni def nañ ko daal di suyee seen benn filmu teg seen benn scénario gëm nit ñi lu amul loolu nag lii nii moo koy décortiquer ndax gàññe bi ñu jógee ci foofu ñu ni fa la ñu demoon muy weer wi am na ay biir yu xew li ci njëkk li ñu mën a tudd mooy ginnaaw bu ñu jógee ci seen mission ba dañu leen mettre en quarantaine maanaam ngir dox ci psychologie yu doomu aadama yi dañ ni leen léegi ñoom du ñu jaxasoo ak nit ñi ndax dañuy doon di jóge ci benn monde bu étranger muy monde bu tumuranke te moo jóge ci weer wa xamuñu nag ndax am na lu ñu fa taqaale maanaam lu ñu fa jëlee ci jàngoro wala lu ni mel loolu nag moo tax kon kenn wur leen a jaxase nit ñi dañu leen a war a ber lekk loolu nekk benn acte boo xam ni bu ñu liggéeyee la ci xelum nit ñi ci nit yi kon kat ñii bu ñu demee ba di leen ber kon dëgg-dëgg li ñu wax kon lu war a mën a am la ngir nit ñi mën cee bañ am benn dut muy benn sikk sàkka ginnaaw bi ñu génnee ci tëj googu muy quarantaine bi ñu leen defoon ba war a jàkkaarloo nag ak ñi ñu tuddee journalistes yi muy sabalkat yi ñu war a amal menam ndaje ngir féete loolu ñu jàppee ni lu ñu def la muy ndam lu rëy ndem ñoom ni ñu ko gisee foofu nag am na lu ràññeeku ci gis-gis ñi nga xam ni ñoom li ñu tuddee ay maxel xam muy ñi nga xam ne ay psychologue lan moo di ne ñett ñi nii seen kanam yi dafa ñaggoon lool ba ko ka gis dangay gis ni am na lu leen déranger loolu nag lan la ndax daa nekk xalaat boo xam ni bu ñu bëgg la maanaam lu ñu bëgg a wax wala loo xam ne lu ñu mënula wax la waaye foofu noonu benn ci sabalkat yi laaj leen ni leen waaw ginnaaw bi nga xamee ni jóge ngeen ci weer wa ci tënk lan ngeen nu mën a indil maanaam mu nekk loo xam ni lu ñuy mën a xam la ci li xew dëggantaan maanaam ndax ñëpp maanaam dañuy pose ay questions xëy na yu xaw a bari ngir bëgg xam ca dëggantaan ginnaw bi ngeen wàccee ci weer wi daal. mu nekk benn ci jëmmati kaw yi loo leen lu ci mën a jox. Ah, many of us and uh, many other people in many places have speculated on the meaning of this first landing on another Would each of you give us uh, your estimate of ginnaaw bi laaj bi jibee nag ñoom ñëpp dañ yokk mel ni amuñu envie répondre loolu nag xaw naa ji dut ci nit ñi lan moo tax ñoom ñëpp ñu ni tekk àndandoo mel ni amuñu lu ñu wax. ci noonu ki nga xam ni moom mu jiite woon mission bi daal ni waaw ñun daal bu ñu xoolee. dem gi ñu demoon ci weer wi wala boog dikk gii nii lim ci mën a jàngate mooy dañoo tàmbaliwaat beneen ère bu bees maanaam beneen jamono bu bees boo xam ni xëy na niñ koy mën a tuddee rek mooy ni ñuy waxee renaissance mooy judduwaat wala yi ni mel nga xam ni léegi théorie yi mu ngi tàmbali door. maanaam mel ni dañoo bëgg gëmloo nit ñu ni daal ñoom américains yi soppi wat na àdduna tegaat ko ci yeneen jéego ñi nga xam ni itam ñooy jàngat lu jëm ci wàllu psychologie doomu aadama ñuy waxaat ni bu ñu xoolee ki nga xam ne moo doon jàllale discours bi dafa mel ni discours bi du ay xalaatam waaye lu ñu ko bindal la wala lu mu bindoon préparé ko ngir tontu ko maanaam ngir wax ko. ginnaaw bi ñu daaneelee benn journaliste bu siiw bu ñu tuddee Patrick Moore daal di leen di laaj waaw ndax ginnaaw bi ngeen demee ci weer wi gis ngeen ceeñeer maanaam li ñu tudde biddiw yi When you looked up at the sky, could you actually see the stars and the solar corona in spite of the glare? ñu ni waaw ñoom di seetlu nañ ni bi ñu demee ci weer wi gisuñu biddiw waaye ci juróom-ñetti fan yëpp gisuñu ci benn yoon biddiw ak lëndëm la ñuy gis xëy na ak jant bi. We were never able to see stars from the lunar surface or on the daylight eye without I don't remember seeing ñoom nag li ñu wax daa wute lool ak ki ñuy wax James Lovell mi bokkoon ci mission Gemini 7 moom mi xam le ni bi ñu nekkee ñoom ci seen mission ginnaaw ay at ci dem ak ñii ñoom dañoo wax ni ñoo ngi doon gis biddiw yi bu baax a baax ginnaaw loolu taxoon ñu jël seen kanami ñu dëpp ko ci li ñuy tuddee fenêtre bu satellite bi leen doon yóbbu wala ndaraan bi leen doon yëgal We'd spend uh, several hours uh, just with our faces pressed up against the window at night, with all the lights turned down low, and watching the stars. waaye nag loolu def mbooloo mi yëpp jafe-jafe ci loolu nu mu war a mën a nekk ndax weer wi ñu ni ca kaw ñoom ñu nekk ca kaw ba noppi faa def juróom-ñetti fan ba noppi gisuñu biddiw loolu nekk loo xam ni lu kéemaane la lo xamni lu daxonté xel la ndax kenn da ko wax ci ñom ñom ñett ñëpp ñu daal di ñëw daal di même expression bi ginnaw demuk ñu jëk ñi benen astronaute bu ñu tuddi James Royal waxam nan ni demal na ci benen mission bu amatun, mom nak bimu mu biñu ko laaje ndax gis nga bidiw What are the stars like in space? Like, are they just brighter than on Earth, or how, how would you describe it? The they're brighter, but they're different. a lot of things different about it. One, you don't have the atmospheric distortion, so they don't twinkle, right? So you see lots of points, and you see lots of points, and that literally millions of them. kon dem gu wéer wi ci yoon bu njëkk bi moom dafa mel ni daa carrément waaye dafa mel ni ni ñu ko waxee won mujj gi yeneen astronaut ñoo ngi dem ci weer yi waaye waxatun weer bi sax fi ñu ni nii seen i bët ñoo ngi ko teg feneen ndax ñi nga xam ñoo ngi dégg Elon Musk moo ngi am projet bëgg di dem ca fa ñuy tuddee Mars maanaam ngir ñu man fa am li ñuy tuddee kër ci gàttal. ana fan la ñett ñi demoon nag moo jaaxal ñëpp waaye ci njàngati psychologue seen waram yi ñu yëngalandoo da am lu muy wone wala lu muy firndeel te mooy kuy wax lu du dëgg ginnaaw matuk programme NASA bi ñi nga xam ni ñoo demoon ci yenn mission yi duñu doon war a amal benn cérémonie ngir fête jëmmi dem googu ndem dëgg la waaye li jiitu loolu ñoom ñi nga xam ne ñoom la wax ni ñoo njëkkoon dem ci weer ba dañoo tàmbali di démissionner benn benn ci li nga xam ni mooy NASA muy kuréel bii di NASA loolu nag am lenn lu mu woon wat ci seen parcours yi waaye ci si ginnaw lii itam bi mu xewee am na ay biir yeneen yu xewaat yuy firndeel nit ñi dafa mel ni li ñu doon wax dara lu ci dëgg lu may ay waxi nax sa xandang ginnaaw bi nga xamee ne nag biir yi xew na moom Armstrong mi nga xam ni. moo jiitu woon apollo 11 moom itam daa tàmbali nëbbu nungutu la def benn interview ak keneen ku mu mën a nekk ci saabalkat yi ginnaaw lii nag am na ay yeneeni biir yu fi xew yoo xam ni tax am yeneen dégg-dégg ak yeneen gis-gis yu nu ci am te moo di ne ñi nga xam ni ñoo defoon lii di tukki bii nga xam ni tukki bu ni janeer rek la ni ñoom ñoo njëkk dem ci weer wi am ay biir yu baree bari yu ko weddi yépp na dadul xaj ci wëpp wi ndax wëpp wi moo ngi tàmbalee gudd moo tax dañu leen koy defal ñaari pàcc soo leen toppee ci beneen pàcc bi ñu leeral leen li nga xam ni mooy firndeel li ñuy mën a tudde ay kàcc yoo xam ni sa Amérique yi dañ koy def di dox ci xeli nit ñi di leen gëmloo loo xam ni dara du ci dëgg lépp nag fii lay leere ndem som na borom bi ci wolofi leer nañ ñu indi leen firi fàcce yi ak nax yeeg manipulation yi boo bañee nag dara raw la gaawal nga inscrire maanaam nga subscribe muy abonné waaye itam bu fekkee ne bëgg nga vidéo bu ñu duggal nga mën cee daal jot da ngay daal waaye itam su fekkente ni bëgg ngaa doole suñu calale gii di Xalam TV nga njañse muy commentaire ak partager ko ba mu gën a yaatu ëllëg ñu dikkal leen ci firi fàcce yi ba mu leer ci seen bopp ndem sob na yàlla